kàddu bu jëm ci askan wi du ci mbënn mi du ci xiif bi du ci nit ñi dee ñi fi amoon du ci coow li amoon ci réew mi di ci réew mi bi mu doon tàkk amul lenn lu xew ci réew mi du ci avion bi Macky Sall jënd du lenn lu xew ci réew mi lu ngeen dégg Pape Diop bokk gis-gis yëkkati ci kàddoom amut ndax fi ko Macky Sall la ñoom ñooy taxaw nag bu jogante amee élection ñu bëgg a taxaw bëgg a laaj baatu askan wi parce que ñoom nekkuñu ci askan wi ci seen bopp la ñu nekk ay milliards la ñuy ut ak ay kër ak di jënd ay hôtel à Saint-Louis teg seen i mafia teg seen dil ci loolu la ñuy dox mais doxuñu ngir askan wi yéen a ngi ci mbënd mi Pape Diop faalewu leen mosu fa teg tànkam dund baa ngi cher ni jamono bi yéen ñëpp yéen a ngi koy wax déggu leen Pape Diop yëkkati ci kàddoom waaye bu ñu waree fal mu jóg taxaw ne bokk naag bokk ma damay taxawal samay coalition pour yéen Touba Mbàkke ak feneen ak feneen ci réew mi yéen ñi ne boo ko gis-gis ngéen ngeen mën koo jox seeni i carte mu gañe dem toog ca assemblée ba di gérer ay milliards am baneen askan wi dama bëgg ngeen yeew Gloria bi ngeen di wax Gloria léegi mu feeñ jindi nañ leen ko jox nañu ay tur léegi Gloria yi feeñ daf ci am ñu nekk ci biti Macky sàll moo leen fa bàyyi leen jox xaalis ñenn ñi mu xoqatal leen tey leen topp leen ba gis na ay sàcc lañu ay milliards lañu yore ci ay suuf ak ay biens yu ñu am ci réew mi ay milliards mu xoqatal leen bu ngeen àndut ak man man nangu seen biens yëpp tëj leen ci kaso bi comme ni ma def xalifa Sall Karim Wade loolu moo tax Pape Diop du bokk ci coalition bi Khalifa sàll moo la gën a xam ne Pape Diop du bokk ci coalition bi waaye da koy seeti ngir bañ ko ko tuumaal ne boo liggéey. mu taxaw ne ba nga koy def yëgaloo ma xalifa xam na loolu ba mu fa jógee xalifa dem na seeti Diop Decroix du Mamadou Diop Decroix loolu la ko wax du ñu mën a bokk ci coalition bi ndax ni ñu ko doxaleeg lii ak laa ak laa lay yi ñu teg ñoom ñëpp amu ci benn lay bu dëgër lu dul ñoom ñooñu ñëpp Macky Sall la ñuy liggéeyal te lépp day feeñ moo tax ma ne coalition bii nga xam ne ñu ngi koy taxawal dafa am solo ndax solo gi ci am du sax duma Macky sàll bu subaa gañe ko ba mu nërmeelu déedéet waaye bala ñoo duma Macky Sall coalition bi day leeral ñi nekk ci kujje gi nekk ak askan wi ñi nekk ci ndox mi nekk mbënd meek dund bu seer bi ñi leen di kaasal ñi bëgg loolu dakk te ànd ak xalifa sàll ak Ousmane Sonko Cheikh ba Dièye ki Aïda Mbodj gi ak duma ma lim su ma limee damay juum yéen ñi nga xam ne yéen ñëpp dëggal ngeen seen bopp sequ leen ak Macky Sall leen lu dul bëgg ko fee jële ngir wàññi jafe-jafe askan yu mbënd mi ndox mi jiw bu bon bi ci dëkk àll bi baykat yi amu leen jiwu amu leen engrais pasar pasare gi Macky Macky dégg naa tey dafa woote woon ñu ne dañuy dañuy fete avion bi mu jënd 60 milliards juróom benn fukki milliards yi mu jëndee avion bi tey tey dafa woote woon ñuy noos ne dañu koy da defal ko xumbaay dañ doon jëndee avion bi tey ci fi ngeen toll yéen tey ci réew mi ci mbënd mi jafe-jafe yi dund bu cher ba yëpp Macky Sall yëgalu ko yaramam am na ñu nekk ci biir opposition bi ànd ak moom lu xew ci opposition bi ñu wax ko ko ñoom ñooñee du bokk ci coalition bi lii man maa leen ko wax duñ ci bokk. may wax ne kon Mamadou Diop Decroix du ci bokk. bugan mom dama ko ci teel a sepp teg fële moom ak pak job nañ ñu wax ñom ñaar lan lañu seq ci des media des media groupe Sen TV pap job lu mu seq ak des media ci groupe Sen TV tayru Sarr pap job ak bugan gi Dany ñom ndax ay actionnaire lañu ci groupe Sen TV des media wala waaw wala nax sénégalais yi ñu nax sénégalais yi di leen tuur lëndëm dafa jot sénégalais yi ngeen yeewu xam ñii leen yërëm te bëgg leen a génne ci jafe-jafe ak ñi leen di utiliser di jël seeni carte di leen nax ngir seeni milliards ak seeni jeeg yu ngi nappaaje yërëm leen seen bopp ngeen ubbi seen bët yi yeewu te xam ne Pape Diop amulu leen njariñ dimbaliwu leen bopp ci boppam la nekk ay milliards la yore xaalis lay wër Bougane Gueye Dany xaalis lay wër naka la mëna taxawé mom moom Bougane ne dafa bëgg a jot réew mi Macky Sall rek nek ci ginnaaw fi la taxaw ubbi ab serveur vocal ne xaalisu yàlla la ko tuddee ku wota ñu jox la 100 000 200 000 ku wota ñu jox la xaalis xaalis bobu Bougane di leen jox xam ngeen numu koy amé serveur vocal lay ubbi su taxé ko wote bo ci wote bo ci defale 1000 francs bala 1 minute ba def 1000 francs bi jeex Sonatel da ko koy verser ci comptam day ubbi ben ligne téléphonique ci orange ñu surtaxe ko minute bi au lieu que mu nekk 100 francs orange defal ko ko minute bi cinq 500 francs boo ci duggee di woote pour ñu jox la sa xaalis boo defee ñaari minute mu lekk la 1000 francs 1000 francs yooyu orange day jël 200 francs yi jël 800 yi versé ko buugaan buugaan jël cent yi def ci poosam yeneen trois 300 yooyu ca des nag moom la leen di séddale buugaan noonu lay amee xaalis ci télévision bi ak yeneen ak yeneen yoo xam ne du ma ci waaw ku mel noonu kuy lekk seen deret yéen di naan seen deret tudde ko xaalisu yàlla xoola boobu xaalis bu xaraam nga xam ne carte la day ubbi numéro surtaxé ko naan woote leen ku woote ñu may la 100000 ku woote ñu jox la 200000 xaalisu yàlla ndekete woote bi ngeen di woote gis ngeen bu ngeen wootee duñ leen gaaw a jël ligne bi day saturé parce que ñu baree woote woote booba ngeen di woote yéen ñëpp chaque seconde buy dem rek seen crédit téléphone crédit téléphone bi da koy lekk xaalis bi nekk seen téléphone day jeex crédit bi loolu xaalis bu bari la boo xam ne orange wala opérateur bi ngeen di woote moom moo koy dagale ki seen crédit xaalis crédit bi ngeen jënd moom lay dagale buggaan jox ko ko jël ki seen wàll ñoom buggaan jël li ki des compal leen ci du jox leen muy lu xaram moom buggaan ci loolu lay dund léegi moo dem ba tey mu taxaw ne damaa bëgg a yor réew mi gëm sa bopp gëm sa bopp ci carte xaalis gëm sa bopp ci lekk lu xaram gëm sa bopp ci di loterie ci biir télévision bi ak benn numéro boo xam ne numéro surtaxé la xam nga ngeen ciy woote seen crédit di ki dem nu mu gën a gaawee nga gis ne li am na sa di boo ci wootee balaa mat cinq minutes mu lekk la dix mille bu ngeen dee mille bu ngeen dee junni nit yu woote ku nekk bëgg ñu jox la cent mille juróomi nit lañ ci jël wala juróom-benn wala fukki nit ñu jox la cent mille muy un million yooyu yéen la ngeen cay ñàkk ci xaalis ci ay dix mille ak dix mille balaa émission bi jeex Bougane ay million la ciy laxas ci seen kaw moom Bougane moom moo wëlbatiku nag ne dafa bëgg ngeen jox ko réew mi mu def ko loterie. LONASE bi nga xam ne mooy société nationale bi def loterie bi moo dal ci kawam ne ko bàyyi li parce que lii ñun suñu métier la moo tax mu bàyyi tegg tànkam de waaye ku gën a dëng buggaan amul ku ko gën a jiw buggaan mën naa lekk lu ne xeebul bañu dara xamul lu xaraam ak lu dagan yoonam newu ci ubbi leen seen xel yi ngeen yeewu Sénégalais yi moo tax ma ne du ma leen yërëm bu ngeen naan mbënd mi dafa métteeg mbay mi doxul ak réew mi amuñu lu ñu lekk ak dañuy dem Italie ak dañuy jaar ci géej géej ma leen du ma leen yërëm parce que yërëmu leen seen bopp nit ñi dañuy wax ak yéen guddeeg bëccëg pour ngeen yeewu xam ñi leen bëgg bëgg leen a génn ci jafe-jafe yi ak ñi leen di nax ba ngeen juddoo ba léegi ñu ngi leen di nax ci lekk seen alal di leen dëkkal ci ndóol daa iman ku feebar dee bu ngeen jëlee géej gi dee ndox maa ngi ci biir ngeen tëmb dégg nga maam mbay mi baaxul lépp ñu xañ leen ko waaye bu ngeen leen gisee ñoom ñi leen koy xañ ngeen mel ne ku gis yàlla bu élection ñëwee ñu naxati leen yeewu leen yeewu leen sama nelaw laa dagg ñëw toog di wax ak yéen ndax fii ak suba lu bari daf fi xew te su ma waxul musibaam bu loolu weesoo <coughs> gis naa waa PDS génn ab communiqué xawma c'est officiel xawma c'est pas officiel lire naa ko su fekkante ne communiqué bi am na erreur bu mag lañ def ñun ndax xawma lu tax ñu génn communiqué ne gis nañu ab circulaire buy tourner di charte boo xam ne dafay tënk pon yi nga xam ne ci la ñuy nas coalition bi am ñu koy signé bañ ne PD signé na man gisaguma ko gisaguma boobu charte ñoom bu ñu ko gisee xëy na ñoom ñoo man gisuma ko que ñoom loolu njëguñu ko bokkuñu ci wax a wax a wax a booy diisoo ak ay nit ngeen di waxtaan te noppeegu leen la jaadu mooy boo amee lay wax nga waxee ko foofu waaye doo def communiqué ko teg ci biti loolu dafa am leneen lu muy wund loo xam ne fii suba dina leer te bu demee noonu <coughs> bu demee noonu ah sénégalais yi sonn nañ de sénégalais yi jaaxle nañu sénégalais yi lekkatuñu naanatuñu sénégalais yi seenu mbay yàqu na sénégalais yi dégg nga maam seen alal pasar pasaree nañ ko sénégalais yàgg ci biir ndox mi sénégalais yépp sonn nañ sonn goo xam ne fi mu toll nii ku yaakaar na man nga leen a ku yaakaar na mën nga leen a nax ci ay communiqué communiqué ak nekk fa nga nekk ne non moo xam Qatar nga nekk moo xam senegal nga nekk nga toog fa nga toog kenn gisu la tey ngeen du gis ñu photo ko rek photo Karim Wade ñu def ko ci bi presse bi ci communiqué bi ak photo Pape tey ngeen ko gis réew mi nag mënoo bu ñuy xeex duñ la gis bu réew mi amee jafe-jafe duñ la dégg Karim Wade déggagu leen ko benn yoon mu wax ci mbënd mi déggagu leen ko mu wax ci jafe-jafe yi ngeen nekke taw baa ngi taw yéen ñëpp yéen a ngi ci mbënd mi da ngeen dégg Karim wax ci dama lay laaj jafe-jafe yi nekk ci réew mii ngeen koy dund yéen dund bu seer bi yéen da ngeen a dégg Karim àddu ci benn kàddu mu yëkkati ko ci da ngeen ko dégg waaw lu tax luy ndayu léegi nag bu ñu waree tànn ngeen ngeen di ko jox seen i carte ku leen dul jooyal seen i ku ku ku leen faalewul ci seeni i jafe-jafe lu tax bu tànn jotee ku kujje élection bu ñëwee ngeen di ko jox seen carte fa ngeen ko teg yéen est-ce que yërëm ngeen seen bopp mu dess nak li lépp amul solo parti politique yi li lañu baxé wo manœuvre sul bu ki sul bu ko duggal ci génn ay pexe ak lay def communiquer wax lu amut wala nga wax lu am ya xam no koy toggé sa ya no tourner sa mbir ba mëna yak ñom bañu ñu dara waye man waxuma ak parti politique yi waxuma ak responsable politique yi man sénégalais yi lay waxal yéen sénégalais yi ndax coolu coolu fi mu toll nii yéen yéenay alikala ji yéenay ndayi mbili gi dañoo toll ci jongante toll ci war a tànn mu nekk jamono boo xam ne yéen yéen a aaya yéen senegal yi te ku aaya nag war ngaa wal sa moome nag fexe ba defal sa cere joo xam ne danga koy suusal togg sa cere yi wata bor ju baax boo ko yàkkee ñu ne eskay ndax yéen bariwuleen ay ay du ngeen aawa aawa moom bus bu nekk moo aaye waaye yéen du ngeen aawa yéen ay ñetteel ak ñeenteel ngeen bu ngeen aayee tey bala ngeen a aayewaat mu mat juróomi at seenu ko ay dafa sori te yàgg yéen sénégalais yi moo tax bu ngeen aayee muy élection yéen élection ba élection ngeen di aaye aaye googu nag waru leen koo wasaare waru leen koo yombal waru leen leen koo jox waru leen carte yi waru leen koo jaay ci ay junneeke ñaari junneeke ñu leen di nax ubbi leen seen xel yi boyal ko ndax ku ci nekk saw ay bu la rombé bala dikkat ay dana mat juroomi at juroomi at yooyu nag ndox dana fi taw nga tëmb dem ci cabinet mu topp la bay bi yàqu say doom dee ci géej gi lu nekk da ngeen ko dund tey jamono bi may wax ak yéen ni dund bi cher na yéen ñëpp yéen a ngi dund jafe-jafe yu metti yoo ya, xam ne kenn fekku leen ci kenn du ko sax wax Macky Sall waxu ci Pape Diop waxu ci Karim Wade waxu ci Ousmane Sonko dong la dégg mu dégg la dégg mu wax ci kenn waxu ci waa léegi yéen bu ngeen amee ay jafe-jafe ñi bëgg ngeen fal leen duñ ci wax waaye ñoom bu ñu amee bëgg-bëgg bëgg ngeen fal leen ñu jóg taxaw ne fal leen ñu est-ce que yéen loolu dangeen ko nangu waaw walla déet jafe-jafe bi nekkul Pape Diop nekkul Bougane boo koy xool du Macky Sall du kenn ndax ñoom la leen war ñaga ca mooy njuuj njaaj ba mën a falu lekk say milliards nappaaje say jeeg ñoom loolu mooy seen programme ñi ngi ci ñi ngi koy doxal ni ñu ko mënee duma leen ci yedd ki may yedd mooy sénégalais bi nga xam ne moom bu ku mu joxul sa carte doo falu kii falaate muy sénégalais bi yi baykat bi sàmmkat bi nappkat bi menuisier métallique bi maçon bi chômeur bi ci kër gi papa yeeg yaay yi yéen sénégalais yi yéen ñëpp ku ci nekk fa nga nekk yéen ñi nga xam ne yéen a yor carte yi te ku ngeen falul du falu yéen yéen laay waxal te ku yedd yéen la war a yedd ndax jafe-jafe bi yëpp yéen a waaye du ñoom yi nga xam ne ñoom lu ñu am ci njuuj njaaj lañ ko amee ñoom xam nañ seen bopp ñun ñiy fal ñun ñoo amul fulla amuñu fayda seen jafe-jafe yi may wax ni dund bu cher bi mbënd mi émeute yi fi amoon complot mais di ko dëkk saa yu ngeen leen déggee mooy seen problème bopp moo am su ngeen leen déggee ñoom ñi rek mooy am na ñu ci laal bëgg ko tëj kaso wala am na ku kuñ bëgg a nangu alalam wala am na ku kuñ bëgg rey ci ñoom ñu ñu jóg taxaw waaye askan wi ñoru leen amul lenn luy dal ci kaw askan wi loo xam ne daañ ci àddu yëkkati ci seen kàddu wax ci duñ ko def duñu ko def mu des nag dafa am ñaari coalition yu am benn coalition bi mooy coalition parti politique yi moo xam bi ci pouvoir bi moo xam bi ci opposition bi loolu lépp benn type de coalition la mooy lan mooy parti coalition parti politique bi nga xam dafa bëgg ko ko fal boo loolu mooy benn coalition moo xam fu mu mën a opposition comme pouvoir loolu benn type de coalition la mu am beneen coalition te bobu moy bi ëpp solo moy coalition du peuple sénégalais coalition bi nga xamné man yow ñun sénégalais yi nga xamné ñun ñoy fal ñun dañoo wara taxaw am suñu coalition baña yaq suñu carte yi kenn bañ ñoo nax di ñu këll këllee ak communiquer réunion tuñ du ñu nitu dara ñom ñi ngeen japp na dañoo ñu leen gëna xam ñom ñu parti politique yi ngeen japp na ñu leen gëna xam ngeen japp na ñu leen gëna jup ngeen japp na ñu leen gëna man ngeen japp na ñu leen gëna sañ maa ngi waat ci alquran na xamuñu lu ngeen mënu xamul mënuñu lu ngeen mënul ndax xam ngeen ko ndax jox ngeen leen leen nguur gi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk lañ ko def xam ngeen ko mënuñu lu ngeen mënul bu leen leen teg ci foo xam ne néewuñu fa parce que bu ñuy ñëw dañuy yor seeni i 4x4 yu rëy sol seen i costume cravate wala seen i gasneer yor seen xaalis ba tax ngeen yëkkati leen xeeb seen bopp la Cheikh Anta Diop doon wax laa leen di waxaat bàyyi leen di xeeb seen bopp ak fu ab politicien jógee daw ñëw ak otom bu riir xaalis xaalisam ak gas neeram ak wala costume karawatam làkki tubaab ñett siib siib siib ngeen xeeb wàcce seen bopp teg ko ca kaw yëkkati leen seen bopp ngeen fonk seen bopp te xam ne ñii ngeen yëkkati tanawuñ leen ndax ba ngeen juddoo ba léegi yéen a ngi leen di fal te bus bu nekk ngeen gën a ndóol kon ñii mënuñu ci yéen dara mënuñu ci yéen dara naw leen seen bopp wekk seen bopp jox seen bopp gëdd xam ne yéen da ngeen a am gëdd képp ku am carte électeur man a wote carte boobu yow am nga gëdd bu rëy boo xam ne soo bëggee dund dund gu baax sa carte boobu moo la koy may mooy nga seet bu baax ka nga koy jox te wóolu ko te mu wóor na ne boo ko ko joxee mu am coppite ki sa dund nga jox ko kooku waaye yor sa carte mu mel ne ku yor ay dàll fu la foo dem summi ko fa doo jóg ci ndox muy taw nga ci mbënd mi doo jóg ci nawet bu yàqu doo jóg ci say doom tumuranke doo jóg ci dugg ci géej gi dee doo jóg ci jafe dund gu cher kañ ngeen yeewu fii de Macky Sall taxaw 2012 bi mu jot réew mi ne réew mi dund gi wërta cher ndax li tax dund gi cher mooy dañu état bi ni muy dundee moo bari alal jëpp dañ ko def ci seen oto yi def ko ci climatiseurs yi def ko ci meeting yi def ko ci càcc gi ñuy sàcc moo tax xaalis bi cher dund bi cher léegi lépp yéen askanu yi ci li seenu loos lañ koy teg moom moo ko doon wax moom tey moo nekk ci bopp réew bi dund bi gën naa cher fukki yoon tey la Ablaye Wade doon def mu koy ŋàññ tey moom fukk da koo ful fukk yoon naka ngeen mën a jëlee seen i carte di ko ko jox yéen yéen tooñ seen bopp. kon man samay wax waxuma ko ak njuuj njaajeer yi njuuj njaajeer yi waxumaak ak ñooñu politiciens yi waxumaak ak ñoom ñoom ñu ngi ci seen mission mooy njuuj njaaj ba mu toog loolu mooy ñoom loolu lañu xam ci loolu lañu nekk yéen ñi bëgg ku. soppi seenu dundin yeen ñi bëgg ku leen fi togal ku leen fi nekkal yeen ñi bëgg ca assemblée ba ñu leen fay waxal seeni wax te pap job ma nekk ca assemblée ba defuko ko leen ko dégg mu taxaw ci biir assemblée bi kaddu ngañ ñi nguur gi ci jafe jafé yi askan yu nekk pap job mi taxaw tay na bokul ci coalition bus ba bu taxaw wote génn taxaw kañ ngeen ko gëy dégg 2017 ngeen ko gëy dégg mandat député ba ngi waja jeex fi ak at élection lañ jëm dana génn nem bonat wala wank nord nga laal mu dugal bopp bi nga bàyyi mu génnewaat bopp bi dana génn nag taxaw nag sol costume ak cravate def réunion di wax nawloowu leen parce que nawloowu leen seen bopp moo tax politiciens yi duñ leen nawloo bu ngeen leen faalewul woon ñu romb seen i kàtkat ak seen i xale maletu xaalis faalewuñ leen ngeen romb leen foom fël leen dox seeni dox léegi ngeen am li ngeen bëgg du ci ñoom de ci askan wi la askan wi moo ñorul askan wi moo bëgg lu yomb askan wi moo bëgg xaalis bu yomb askan wi moo bëgg ku koy sarax li mu dundee askan wi moo bëgg di yalwaan di dundee askan wi moo bëgg ku ko yërëm ci am jàppal ci lii saako ceeb baa ngi nii génn leen seen xel yi ci dundug yalwaan dundug baadoo la da ngeen a war am lu gën loolu te loolu yéen koy may seen bopp mooy taxaw temm àndandoo jël seen i carte jox ko koo xam ne bu ngeen ko falee daf leen utal xëy ngeen liggéey par force di dund ci seenu ñaq ak seen xam-xam loolu mooy dund nit loolu mooy dund ku noble loolu mooy dund ab jullit ab jullit du yelwaan jullit du dundee yelwaan moo tax may dutee ne est-ce que ay jullit ngeen loolu dama ci am xel ñaar sikk sàkk jullit boo xam ne ba dundam yëpp lim li mu li mu dundee ba dee da ko yelwaan kooku musiba la kooku musiba la nit ñi ñoo war a yeewu ubbi seen xel yi fi mu toll ni guddi na mënumoo ñàkk bañ a wax mais dama leen bëgg a defal bu leen xuloo bu leen xeex bu leen xas kenn bu leen ŋàññi kenn lu tax dañoo toll ci cëppaa ndaw dañoo agsi nag terminus dañoo jël bus bi muy daw di romb ay arrêt ñii di yéeg ñii di wàcc di romb ay arrêt ñii di yéeg ñii di wàcc bañu agsi terminus chauffeur bi wàcc nañu agsi nañu fay fay moteur bi foofu lañu agsi ñoo xam nag kii est qui qui fait quoi la ligne Maginot mun tay mu am coalition bi ñu wara taxawal da fay nek lo xamne day leral lu bare bare bare bare bare ndax njuuj njaaj gi dafa yag nak nek ci opposition bi yo laam ñu reuy fekk yag makka Sall yene a bus bu nek lool lepp nak li da koy fessel motax gaay yi commencé nañ jëfru ma ñew sa kër demb sa doom bi mako lek barki demb ki tankam ba mako dam bima ñewé ma ngelaw la soppiku ma jaar ci parentère bi dugg wacc génn kenn da ngeen dégg lu ne ne leen rek dañuy jëfru fi ñu toll nii léppay leer jafe-jafe bi yépp nag senegale yi la politiciens yi lu ñu yées yées yées yées yées yées sénégalais yi ñoo leen yées ndax li politiciens yi mën a am lépp ci càcc alalu réew mi ci nax sénégalais yi yéen sénégalais yi yomba ndax ji ngeen yomba ndax moo tax lii mën leen a dal kon jafe-jafe bi nekkul ci ki lay nax jafe-jafe bi mi ngi ci yow mi nga xam ne dangaa yomba ndax yow mi leen ko yombalal yow fagaru jógoo yeewoo say doom say mbokk ñëpp uti leen kart kenn ku ne nga taxawul ko fexe ba convaincre ko mu yor cartam nga fexe ba xamal ko ki baax ak ki mën a soppi réew mi nga fexe ba mu jël carte ba jox ko kooku bu fekkante ne loolu yéen jaralu leen ko waaye li ngeen yittewoo mooy seen xew-xewu bopp ci ngay dox guddeeg bëccëg te dangeen a cëkk la ba noppi di boote gàmb ku sa koddaay cëkk nga jël manque bu doy ëf ko ba mu kii dugal ko ci suufu koddaay la da gën a cëkk la yeewu leen te xam lan mooy seen njariñ lan mooy seen priorité ku leen di dimbali ak ku leen di jariñoo ngeen xàmmee leen dafa jot màggat bay judd bay màggat bay xubidaas ñu dëkk ci dina nax saa yu élection ñëwee ñu nax la digg laa digg digga digga dig may la tuuti xaalis jox la saaku ceeb fena fena fena fena fen ngeen jël seen xel mu gàtt gëm joxaat ko carte ba mu toogaat dootu leen ko déggati ba juróomi atati bakkañ kañ ba kañ li am solo te am solo te gëm naa loolu mooy ñu ëpp ci askan wi léegi commencé nañu yeewu ndax réseaux sociaux yi dafa yeew ñu bari manœuvre yi parti politique coalition woo dugg naa génn naa bokkuma première étape bi moy njalbeen ci waaye li am solo deug deug deug man du loolu moma ma sax li ma yitteel moy askan wi ne len tek taxaw teel seeni carte ràññeet la xol bu baax xamé bu premier coalition bi taxawé moy opposition bi wala pouvoir bi ñepp buñu ñu taxawee ba noppi parti yépp nak la ci wax buñu taxawé taxawee ba noppi ba def li ñu def yeen sénégalais yi ngeen def sen coalition nu ngeen koy defee mooy ñun de gis nañ ne ñoom ñii xuloo nañu ba teex njuuj njaaj geeg Pape Diop dugg na fii kay wax na léegi Macky Sall Karim Wade kii kërë kërë léegi ñun sénégalais yi ñun ah li yéen ba ngeen aaye yéen tëju ngeen waxtaan conférence de presse maa ànd ak kii ànduma ak kii loolu yéen Sénégal yéen parti politique yi seen i mbiri bopp la suñu yoon newu ci bu ngeen noppee ñun ñooy aaye ndax yéen ñii di Pape Diop bokk maag Mamadou Diop Decroix bokk naa seen cinéma yooyu ñu def ñoom ñoo fal kenn ñoom ñoo fal seen bopp ñun askan wi ñoo leen di fal buñ leen bàyyee ñoom ñu def seen cinéma ba noppi ñu jóg taxaw nag ñun jaagar jaagar yi ñoo aaye di ku aaye wal sa moom ñu ñëw jaagar jaagar yi ñun taxaw yor suñu xel nag na jar xel daas suñu xel yi ba mu ñëw jël suñu carte yi ngegenaayoo ko taxaw yeewante waxtaan suñu biir fexe ba am mbooloo mu takku jekk-jekk rek jëblu jublu fenn fu ñu jublu rek foofay am ndam

ñu jubali fa ñun ñëpp di ay njéeréer coow lu jeex coow lu jeex ñi war a ànd daañu ànd kenn mënu ci dara am na ñoo xam ne duñu ànd ci biir coalition opposition bu dëgg bi nar a taxaw parce c'est normal su fekkente ne yow ba Macky Sall ba chaque fin de mois nga jot 5 millions 10 millions 15 millions Macky di dis ko jox ñu di ko dunde boo feebaree mu faj ñi ci Tout tuuti ñii 2 millions 3 millions ay milliards day dépensé par année ci entretenir opposition bi nga xam ne moo koy liggéey ci biir opposition bi mais ah bu tànn bi jotee kay da ciy feeñ daf ciy feeñ élection présidentielle la ñu dem barki démb 2019 mu ne juróomi candidat lay am ci biir juróomi candidat yi ñeent yi ñoo ànd kenn moo ci nekkoon opposant muy Ousmane Sonko ñi des ñëpp ñoo àndoon dañ doon nax nit ñi parce que moom moo leen taxawal jox leen ay parrainage valider seen parrainage jox leen ay milliards pour ñu campagne jox leen ay oto jox leen carburant jox leen lépp ba élection yi weesoo gis nga leen ñoom ñëpp dem nañ fekk jikko ne patta jàpp seen jàmm ci doon opposé wu di xuloo ko xeex ba léegi moo fi nekk benn opposant fi am muy Ousmane Sonko d'après les élections présidentielles ñi ci bokk am am anañu anañu leen ci loolu la ñuy defaat nii moom lañ bëgg a taxawalaat nii taxawal nañ fi coalition boo xam ne bëgg nañ ko Ablaye Wade na cëpp jóge Paris wàcc Dakar ñëpp di ko xaal mu ñëw keroog ca bis ba ca ba mu wàccee fa mu taxaw di wax fa la doon taggee Ousmane ko ñu ne ah xëy na kon mu jàppale ko bu ko jàppalee rek coono Sénégalais yi jeex ndax kani nekku fi Ablaye wad mag la Ousmane Sonko fi sës comme ni ngui koy tudd mën naa dana ko jàppale ma yaakaar ne dana jox ordre pour ñu wotee Ousmane Sonko mu a ties duggu ci ab avion dem guiné Sarkozy Tony Blair Alpha Condé Macky Sall jo ay émissaire ñu dem guiné protocole guiné Conakry ba légui protocole bi gennagul amone bu rebeus mais ba légui genn Ablaye wad delu ci wat na japp ndiam dem génn ci tax tax na le ana intérêt sénégalais anam Macky def li muy def saa yu Sénégalais yi yaakaaree ci opposition bi yaakaar na ñii seen bopp lañu fi nekk yaakaar na ñii dana leen dimbali saa yu Sénégalais yi amee espoir rek am ci biir opposition bi ñu jaay espoir bi ndax lan seen ay intere bopp seen bopp la ñuy négocier seen i doom la ñu bëgg ñu génn prison maanaam négocie saa yu ñu toogee ci kaw taabal rek ñu ki nekk ci mbënd mi xooluñu ki baykat bi amul jiwu xooluñu xale yi liggéeyu xooluñu ñuy dee ci géej gi xoolu ñu dund bu cher bi seen yoon nekku ci saa yuñ toogee di wax wax yu politique seen ay intérêt bopp nu ñuy faloo nu ñuy jotee nguur gi nu ñuy amee ay milliards ñoom ñëpp ci loolu la ñuy wax kenn du ci waxee askan wi waaye ah, léegi ñoom ñoo ñooñu ñoo bëgg ñëwaat encore encore ati naxati leen ndax ndax yàgg na su fekkee ne yéen Sénégalais yi mën leen a yeewu ci nax gi mais kenn du leen yërëm man du mu leen mën a yërëm jël leen seeni carte taxaw na teg bu leen wax ak kenn bu kenn xam fu ngeen jëm ba bis ba balaa boobu ñun daañu leen wax li ñu leen war a wax lañ ca xam daañu ko wax xam leen ñan ñoo wóor ak ñi nga xam ne bu ngeen leen joxee seen carte balaa ëllëg da ngeen teel a gis coppite ci réew mi ni muy doxe ñu ànd ñu ñëpp ndax mbooloo mooy joxe majorité mbooloo mooy tax a falu kon man képp su ma joxoon sama carte diw te yéen ñëw leen du am njariñ il faut que ñu àndandoo takk carte yëpp dagale ko takk ko ba mu ne kodd ne aw sayu mat kuy taxani nga xam ne boo agsee sa kër da ngay mën a xamb togg sa togg bu neex boo ko yàkkee ñu xam ne kii ñii kat ba ñuy taxani xamoon nañ li ñuy togg lu mu doon waaye kii jaar fee kii jaar fee kii opposition bi politiciens yi nga xam ne mooy seen métier politiciens ay politiciens lañ mooy métier. amu ci kenn ko naan fëcc ne ko lan mooy sa liggéey looy def mu wax la ko amu ci koo ci woo Thierno Bocoum barki démb bi ko Aïssatou Diop Fall ne looy sa liggéey mu naan ko xaw ma lan enseignant laa xaw ma damaa yor bopp yi kon maanaam naka nga bëgg a yoree réew mi bëgg na yow da bëgg a yore sénégalais yi te yow miy wax loolu yow yow amum xëy yow yow miy wax loolu yow mënoo wax sénégalais yi looy liggéey ba noppi nga da ngaa bëgg a yor Sénégal mais kañ ngeen yeewu yéen sénégalais yi xanaa boo demee bay laaj am réew war nga mën a ma man lii mooy sama liggéey lii lay def ñu ñu xool la ci loolu sax natt la ci loolu xool ba xam loolu sax ndax yaa ngi koy def defin wu rafet waaye yow kenn xamul fooy xëy mën na nga dangaa bëgg yor Sénégal kon nañu ne teg déglu ndax coow lu yëpp bëgg a yàq coalition bi moo ko jëkk moo ko tax a jóg bëgg ko yàq bëgg ko tasaare ndax ba nga xamee ne ñu ngi dem élection présidentielle 2019 nga xam ne booba Macky sàll boo bëgg a faluwaat te yu bari yi arrangé wu ko bu candidat yi bari woon rek day dem deuxième tour fexe na ba dugal parrainage fexe ba jënd ñenn ñi jënd ay milliards teg ci ko taabal yi ñenn ñi mu éliminer leen ñenn ñi mu jënd leen jox ay milliards fexe ba wàññi candidat yi nga xam ne li mu bëgg dana ko mën a am mooy jàll premier tour forcé boba arrangé won nako ndax boba jëmmam mo wona jall waye tay bi nga xamé ne tay ji du jëmmam mooy jall waye tay gox goxati ñoo wala tan seen ay maire dana fexé ba candidat yi dana bari lool dana fexé aussi ba ci bir opposition bi nak mom coalition benn boko ko bëggu fa benn candidature bu bari dafa bëgg ñëpp and mom dafa bëgg ñëpp and ci bir ci bir njabotam kenn baña tass waye waaye ko bëggé ci njabotam ni ngi génne ay milliards pour que ñi nekk ci kujje gi ñom tass gis na li muy liggéey day dajale mbooloom ba noppi tas mbooloo opposition bi ndax am na ñu ko nekkal ci biir opposition bi mu leen jox ay milliards ñii mu enquête ci ñoom ba gis na ay sàcc lañu ay milliards lañu yore mu xoqatal leen ne bu ngeen àndul ak man dafa ma li ma bëgg mooy tasal ma opposition bi ma dugal la ci kaso bi te su la ko waxee dañ ko gëm ndax def na ko Karim Wade def ko Khalifa Sall yow Pape Diop boo ma jàppalewul ci biir opposition bi yow Bougane dama lay tëj ci kaso bi du mujj fenn ndax yéen euh, ay boja boja ngeen su ma leen tëjee ci kaso bi kenn di génn Ousmane Sonko laa ko doon jéem a tëj ci kaso bi Sénégalais yi génn du ma moom ba ma bëgg a dee ma dellu ginnaaw waaye yéen ñi yéen moom ay Pape Diop ki ay Bougane ki ay boja boja yi yéen su ma leen dugalee ci kaso bi yéen weñ du dee kon def leen li ma bëgg wala ma dugal leen ci kaso bi loolu mooy loolu mooy li am li ñuy xeex yépp ñu ci ëpp ñu ngir askan wi ñu askan wi ndax seen deret deret ji daw seen yaram mi deret jooju alal ji ko suuxat ba deret ji daw alal ji moo xaram ndax alal mbooloo lañ sàcc ñoom ñëpp amu ci kenn ku am alal joo xam ne boo ko fëggee mun alal ji fi laa ko jëlee ñoom ñi ngi ñoom ñiy wax ñëpp koo ci yëkkati laaj ko lu muy dundee alalu politique la ñuy dundee alalu askan wi seen alal ji ngeen manqué ba tax ngeen nekk ci mbënd mi dund bi cher nit ñiy dee ci géej gi xale yi amuñu liggéey alal jooju moom lañ leen di séddale ñoom ñu di ko lekk ñeent fukki ni ci dañuy dund ñoom ñëpp loolu lañ bëggul mu dakk loolu moo tax ñuy manœuvrer di génne ko wax Pape Diop fu mu jëlee alal ji mu yore yëpp ay milliards yi milliards yi milliards la ci alal am na ko ko sàcc bëkk démb cent quarante cinq milliards cent quarante cinq millions ci lan nee na da ko doon jëndloo xaw ma benn kër xaw ma benn hôtel waage na ko da ma koo may mu ndaw dag mo utlo utloo ab serigne sëriñ bu le ñaanal xuma lan ci kër kër ndar amna na hôtel bu mu génn ndar bëgg dem pap jop hôtel li mu ci suuf dakar kan xam ne ak patrimoine bo xamna makki enquête na lepp ba téye mo bu xëcc ko tok wax ak mom ne ko boo ànd ak man dama lay dugal ci kasso mu ne nem bo ba léegi déggu len ko ñu sutural ko ne pat di xaar nak wax dafa jot moo tax ñuy wax waye bo ba mësu ñu ci wax parce que mi ngi na tek waxul dindiwul yokul ci dara japp njàmb dem gisunu ko assemblée nekkulu fa askanu te mandat wu sénégalais la yoro ñoko def député pour que mu togal leen ci penc ma di leen waxal seen comme ne ko Ousmane Sonko koy nek ci assemblée ba di yee nit ñi di dal ci kaw pouvoir bi ci li ñi tax saxati alalu rew mi pap job mosu leen ko dégg mu cadeau ci assemblée lutax te ñi fayé ko wu nekku ñu fayé ñu fayé ko ci ñu alal ne pat to japp jàpp dem léegi nak tan jotat na mu ñëw taxaw bokk naag bokkuma bu gannaaw subaa ngeen dégg mu commencé génn commencé réunion parce que la Macky Sall bëggoon mooy def ko moom Pape Diop candidat wu Benno Bokk Yaakaar ci mairie Dakar moo nekkoon plan wu Macky wàccee Moustapha Niass ci assemblée bi dàq ko jël poste président assemblée nationale ba jox ko Pape Diop mu àggale mandat wu yi fii ak de juillet 2022. mu bàyyi ko mu nekk président assemblée moom Pape Diop nekk candidat wu Benno Bokk Yaakaar. xañ ko Amadou Ba xañ ko Diouf Sarr xañ ko ñi koy xëccoo Dakar yëpp mu xañ leen ko jox ko Pape Diop loolu mooy projet Macky Sall waaye loolu dafa antuwul ndax Moustapha Niass dafa fausse jeune wax naa ko ci live bu yàggul Moustapha Niass bi ñu bëggoon a faagaagal yëkkati ko dafa dem ba yàgg mu toog lànk ne demul moo tax fi ñu toll nii Macky Sall ak Moustapha Niass neexootuñu waaye Niass magum démb la moom Niass ba muy càngatoo ko di uti sëriñ ak di takki gàllaaj booba booba Macky ab ab ab ab cuuj la mi ngi jàng dox léegi loolu mooy seen problème nag dil bobu mo toj pap job xamna Khalifa Sall xamna lépp bo gisé mu seeti Pape Diop Khalifa il est politique motax tax mu seeti Pape Diop wax ak mom ci coalition bi xol ba xam Khalifa la gën xamne pap job du dugg ci coalition bi Khalifa Khalifa Sall xamna ko bu baax na Khalifa nekkon na mairie Dakar Khalifa mo gagné Pape Diop mairie Dakar pap job 2009 biñu ñak ñàkk mairie Dakar Khalifa Sall moko gagné donc Khalifa xamna ne Macky Sall Pape Diop la bëgg def candidat wu Benno boko yakkar mu seeti ko diko tester ak bañ ko ko tuumaal na ba ngay def yëgaloo mo mu dem seete ko Pape Diop na ci bok lay yim joxe du wenn lay lu dul Pape Diop ak Macky Sall and waye Amadou Ba mi ngi tok di xaar ak ñom Diouf Sarr ñom ñëpp kenn ko yaangi mer tok di xaar ba xam lu Macky def ndax Pape Diop lay jël wala deet ne len pat taw deglu rek ñom lu ñu nas yëpp xam nañ ko ñun ndax dañu am suñu nit seen biir lu ñu nas rek xam nañ ko waaye la ma daj ci 2017 élection législative yi pour opposition bi ànd ñi ma xam xam nañ loolu la ma ca daj pour ñu ànd pour mën fa jëlee Macky Sall waaye dañoo dem ba ca ba mu war a sotti Pape Diop taxaw fee Ablaye Wade ñu naan ay wattu Sénégal gi Khalifa Sall taxaw taxawu Sénégal ñu tas ko. 2017 laa doon xeex pour coalition bu mag am taxaw ñu mën a nangu assemblée bi jëlee fi Macky Sall 2017. la ma bëggoon amul damaa geddi élection yi 2017 voté wu ma damaa geddi élection yi ndax mer gu ma mel opposition boobu Ousmane Sonko mii xeex naa ji ba tàyyi Pastef pour ñu bokk ci coalition ba Pastef taxaw lànk na ñoom duñu bokk ci coalition dafa am ñu ñuy àndal ak ñu ñu àndal am na ñoo xam ne duñu ànd ñoom am na ñu ñuy àndal di di tànn ceeb man leen comprendre wu leen dama ci damaa dal ci kaw Pastef bu ngeen ko fàttalikoo ñi ma xam-xam nañ boobu 2017 li may xeex yi yàgg dama ko yàgg xeex du tey da war a ànd taxaw ñu war a ànd ànd def coalition mag jëlee fa Sall 2017 laa ko doon xeex Pastef bii tey bëgg coalition bi dafa taxawoon lànk 2017 may nag jàng na ci tey Ousmane Sonko beneen xalaat la am bu bokkul ak xalaat ba amoon 2017. très bien ndax politique du ay jàkka ki jumaa ki affaire dogme c' est pas la religion la politique du alxuraan toog naan wuy kii set na kii setul kii baax na kii baaxul dafa am stratégie yoo war a teg pour mën fi jëlee ki leen di faagaagal. tay Ousmane Sonko bi ngeen xam tay bokkul ak Ousmane Sonko 2017 il s'est beaucoup bonifié et c'est comme ça ça j'apprécie kon di wax ne nañ déglu ñi nga xam ne ñoo seq mbir mi te waxaguñu ñi wax ñëpp pour yàq moo leen tax a jóg bala ñoo wax nag dañuy bàyyi ba ñi nga xam ne ñoom ñoo ne ñooy dajaloo bu ñu dajaloo ba toog ba jàkkaarloog sénégalais yi wax leen li ñu namm wax leen li ñu ci def kuñ ci waxal kuñ ci waxul ku bëgg ku bokkul lépp leer ñu xam dana am coow nag te gisu génn waaw man bokku ma ndax léeg-léeg la lay sos am ku bok ci bir mbir mi genn nako deet li tax nga boko li ak li motax li nga wax amul da nga sos lolou dana ci am mais lolou lepp baax na day tax sénégalais yeen sénégalais yeen yeen yeen ma yittel yeen sénégalais yi sos ak Ki weddi ki wax ak ki weddi yeen amal na leen njëriñ yéen daal daas len senum xel tay deglu ñepp rek ndax yeen coow lu bari bari bari sen avantage yeen sen jeriñ la ndax yeen day tax ngeen xam fi deug gi ne ñom bu reyante opposition bi yéen leen tekk rek ubbi daal seenum xel tey déglu joxe seen nopp joxe nopp du fees nopp déglu du fees joxe leen seen nopp rek tey dawal seenum xel xel bi ne nay na rek te ñun ñi nga xam ne ñun ñoo ànd ñun ñu askanu ñun askanu ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci mbënd mi ñooy dund dund bu seer bi ñun ñi nga xam ne ñun faluwuñu ñun ñun nekkuñu wuñu fenn pour falu ñun waaye ñooy voté ñun ñooy falaate mais taxawuñu fenn dañoo bëgg a falu ñun dañu ànd taxaw ne aw sax yi wat taxaw di xaar kenn du falu te fëggoo suñu bunt ba bala fekk kenn fal nangu ñu fëgg waaye na fekk ñu pare ñun ba xam ki ñu war a ki ñu war a fal nu mu war a taxawee nu mu war a mel bu lii amee ñu am jàmm mbënd du fi amati 2000 ba léegi ñu ngi ca mbënd 2000 21 ans ak mu nekk mbënd mi gën a tar liñ ci génne ci xaalis mat na 1000 milliards sàcc nañ ko ñoom ñëpp lekk ko ci am Abdoulaye Wade ba ca Macky Sall système bi benn la joxe ay marché fictif jox ko seen nit ñu gis de génn xaalis bi ci budget bi programme ko def dégg nga maam ay ay réception fictive na réception nañ ko def nañ lii dara naa ngi dégg Omar Gueye di fen barki démb naan liggéey bi yëpp def nañ ko kërë kërë non bu ñu ko audité ne liggéey bi dañ ko enterré bu ñu ko audité si ñu ne def nañ fa ay ay ay ay ay canaux def nañ fa ay ay coulé nañ fa ay ay ay ay rigole lépp daañu ko audité même su fekkante ne liggéey bi liggéeyu suuf la lépp il faut que ñu audité ko benn par benn dañ koy audité physiquement ba xool ndax canalisation yi amna mais dañ koy auditer sur le plan qualitativement dañ koy auditer physiquement auditer ko qualitativement moy mooy physiquement moy li nga ne am ndax def nga ko ñu tek ci beut ne mi ngi ni ben moy quali audit physique bi dañ koy auditer qualitativement moy li nga ne am na ba noppi ni nga ko liggéeyee est-ce que liggéey bi njëg gi nga ci def xaalis bi est-ce que def nañ ko ci liggéey bi est-ce que liggéey bi amna qualité ci njëg gi ñu ci def audit bobu day am waye aussi dañ koy auditer aussi sur le plan financier est-ce que xaalis bi nga xam ne moom nga déclaré milliards ne moom nga ci def est nga ko ci audit yooyu yëpp dafa war a am te day am incha allah mais li tax mën a am nag mooy man yow yow mi may déglu ñun suñu carte yi carte électeurs yi ñu rek moo mën a leeral loolu ba alal ji dellu siwaat ci ñun tanq tant ñoo ngi pasar pasare suñu ay carte di ko joxe ak bañ a voté ji ak bu ñu wax ñu ne ñoom ñëpp a yem tant que ngi xalaatee noonu du ngeen jóg ci mbënd mi du ngeen jóg ci ndox mi du ngeen jóg ci ndóol du ngeen jóg ci ñuy sàcc seeni alal bés bu te lii am am na ba noppi mënuñoo muusa ko maccaat ba wëlbatikaat bi lii am am na ba noppi mënuñoo muusa ko maccaat ba rëcc si terminé Macky Sall jeexal na Sénégalais yi commencé nañu yeewu bunt bu bees ubbiku na c'est du renouveau Sénégal gu bees moo taxaw moom la ñëpp di seetaan fi mu toll nii te day taxaw incha allah rabbi kenn mënu ko dara c'est irréversible c'est ça la vérité il ay nit ñu bees la ñu bëgg nit ñu dëggu nit ñu bëgg réew mi nit ñu am fulla am fayda nit ñoo xam ne kenn dootu leen jog gi loolu moom yàlla may na ko Sénégal c'est terminé te ñoo ñooñu dañuy falu insha allahu rabbi nag yàlla décidé ko kenn mënu ci dara njuuj njaaj jeex li loolu lépp c'est terminé mu des nag kañ la ak ndax ñun ñi war a doxal loolu dégg nañ ko ndax yàlla moom du fi ñëw di voté ñun ñooy voté ñun ñoo war a ànd yàlla mun nekku fi ñun ñoo fi ne waaw tey nag day yàlla dalay xamal ci misaal xamal la ci gént xamal la ci cim xel nga am sam xel xam ne lii kat situation yi ni muy demee nii am na yàlla namm nga dox ca loola ci nii wala ci nee man maa leen ko wax ci nii wala ci nee ci nii mooy dem élection mu jóge fi ci nee mooy élection du ko fekk moom Macky Sall moom Macky Sall ci boppam laa la wax ci nii wala ci nee amul choix day dem ci nii wala ci nee day dem ci nii mooy dem ci ay élection ñu duma ko mu xaja abal ñu wala mu dem ci nee wala élection du ko fekk sax faf ñaar yii rek mooy choisir kon Euh, nañu bañ a jiitu parce que ñoom des fois ñoo ko tey dañuy sës jaxase mbir yi pour xool ba xam nit ñi nu ñu réagir bu ñu bu ñu réagir ci réseaux sociaux yi nañ la tekk déglu bañ a <coughs> bañ a teel a génn seen communiqué yi ñuy def ak yooyu yëpp ay ballon de sonde la on est en politique dañuy test opinion bi xool ba xam opinion bi nag la ñuy xalaate fu ngeen dégg communiqué rek communiqué ci politiciens yi fu ngeen ko dégg rek ballon de sonde la essai la mooy jiitu dañuy def dañuy bind tak tak tak sànni xool loo xam ne gars yi réagir dañuy soog a woote soog ñu taxaw nag di wax bu leen tontu mbind yi bàyyi leen ba ñu taxaw wax jaxaran tiim leen ngeen soo a wax bind yi communiqué yeeg post yeeg Facebook yi loolu ballon de sonde la saa yu ko politicien defee rek dalay testé xol ba xam yow noo ko gisee noo ko déggee danaa bëgg natt ba xam fan lay jaar buntu sarale bi lay jaar wala buntu parentère bi lay tëpp wala fu wala day jéggi mur bi nga leen ne leen teg yéen a ngi bëgg a dee dund bi lépp a tàngoor wi ndox mi bu tawee fi mu toll nii yéen ñëpp yéen a nga tëmb ca kaw di fii ne ay wanq wala ay mbóot baykat yaa ngay bëgg a dee amuñu jiw amuñu engrais amuñu dara ndaw ñi amu leen mu um xëy dara mbas mi nit ñaa ngi dee bés bu nekk seen arbel yaay yéen ngi suul guddeeg bëccëg ak yeneen ak yeneen li maanaam li nekk ci réew mi yëpp kenn nu koo jàmbat kenn kenn kenn ndax bari gi mu bari loo ci lim am loo bàyyi ñoom politiciens yi talu ñu leen de kenn du ci wax li leen yitteel mooy dànqoose gi mooy budget bi milliards yi oto yeeg 4x4 yeeg weew weew ji ak policier motard bi lay topp weew weew weew dama ko dig Idrissa ñëw na ñëw na ñibbisi na Sénégal barka démb Idrissa Seck mburu xaw ma soow ñibbisi na semaine passée la ñibbisi volu Air France am na loo xam ne maa ko ci ñambas autorités yi jógee Sénégal naa ci def live spécial ñoom ñëpp Idrissa Seck ak ñu baree baree bare naa ci def li maa ngi lissi maa ngi koy préparé bu ñuy ñëw France ak dem Sénégal Air France dañuy jël te Air Sénégal dañ leen dafa am problème de kenn du ko Air Sénégal ñoom ñëpp Air France dañuy jël ñom ñi wax naan ñoo nekk ci bopp réew mi Idrissa Seck bëgg na ni ñëw Air France la jël bi muy ñibbi Air France la jël Air Sénégal ñom duñ ko jël parce que pour ñom Air Sénégal dafa xébu Air Sénégal affaire bu baadoolo la Air Sénégal Air France dal mom moy moy dànkaaso gi Air France dal mom moy kangami Air France complexé ñom ñëpp Air France lañ jël kenn duñ jël Air Sénégal kenn ñom ñëpp ma ngi def laay spécial ma ngi koy toppatoo di ko taxaw di dresser liste bi ñom ñëpp te diko jël na xam seen tour ñom ñoom ñëpp naa leen cité ben par ben am sa compagnie Air Sénégal Ethiopian Airlines jël kenn ku nekk yow nga ne nongu ca Air France nga complexe boo xam ne di fay billet billet bi 2 millions 3 millions ngay fay billet ci suñu koppar lañ koy daggee ñun ñëpp ñoom suñu xaalis lañ yor de Idrissa Seck Macky Sall ñoom ñëpp léegi ñoom ñooñu nag ñoo bëgg encore ngeen falaat leen ba kañ Thierno Bocoum loolu def dafa def post ci page di testé coow yu bari loolu mun a xaaral ma génn li ma leen di wax man li ma leen wax lu ma leen wax man jàllu muus la bu la neexee nga bañ a wàqi de waaye booy wàqi dafa fekk dara ma leen a xam dama xam technique yi dama xam man dama ñoom dama maanaam lépp kenn mënu ko wax lépp kenn mënu ko wax kon

le communiqué du PDC de décroître Sonko oui seen communiqué yëpp tout est loolu lépp c'est contradictoire seen communiqué yëpp amu ci benn boo xam ne yooyu yëpp communiqué yi daal moom jot a commentaire seen i communiqué bu leen ci commentaire communiqué kenn du ci commentaire voilà da ngay bàyyi ba wax jot ba ki kii communiqué moom na wax na génn woote wax kii commune Ousmane ko moom saa yu amee lu muy wax ak yéen day woo taal télé bi yéen ñëpp ngeen toog muy wax ak yéen ngeen di dégg li muy communiqué lu néew la lu ci bari day génn bu ngeen ko déggee muy communiqué mooy day condamné day jaale wala muy joxe daje joxe rendez-vous communiqué waaye moom li muy wax da koy wax mu leen nañ ñi des na ñoom dañuy toog fee di communiqué dox seen xel yi leen jéem a teg dil da ngeen di muus yeewu ay communiqué kenn du ko commentaire da ngay bàyyi kii communiqué di làqatu amul fit ak di làmbatu xool ba xam bu waxee wala fi mu jëm ndax bu ko nit ñi mu leen di testé di xool ba xam nu ngeen taxawee day leen tekk taxaw di ko xaar ñu ab laat waxoon xaw ma lan maag yàlla boo ko ree ñu ne ko waaw ñun demuñu demuñu ci yàlla demuñu fenn ñun demuñu aras ñoo ngi fi booy dem fi nga ñu bàyyi ñu fenn waaye ñoo ngi toog fi la xaar wax na dëgg demuñu fenn waaye waaye ku ñëw fekk ñu fi bu leen kenn perturbé am leen fulla maanaam naw leen seen bopp yëg leen seen bopp xam leen ne yéen du ngeen ku ndaw fonk leen seen bopp fonk seen gëdd jox seen bopp gëdd jël seen i carte téye ko bu leen kenn perturbé bu leen gis ab politicien 4-4 bu jar 100 millions ki milliards yi mu yoree ki neewi gi mu neewee costume yeeg cravate geeg parfum bu neex beeg jongama yi muy nappaaje bu mu leen romb ba ngeen yaakaar na mu leen gën ba ngeen xeeb seen bopp lànk leen dàll yu ngeen sol moo leen politicien bi ngi bi ngeen gën a naw ci réew mi seen dàll yu ngeen sol moo ko gën ndax ci alalu askan yu dong la amee li mu am yëpp amul benn mérite te yéen da ngeen xëy dang-dangi li ngeen am da dina lew dom ñoom nag ay sàcc lañ ñoom ñëpp kii yor sàcc milliards di ko dundee kooku mun da nekk sa nawle kooku yow man dama leen a xeeb ñoom ñëpp nawlewuma ci kenn suñu alal dong la ñu dundee nawlewuma leen duñu dara ci man ñi ma ci xam-xam nañ ko faalewuma leen

seen intérêt mooy ngeen ànd ci coalition bu mag ba li ngeen ñàkk yépp ci nguuru Macky la ngeen mën ko dabuwaat parce que yéen dafa am lu bari lu ngeen war a dabu loo xam ne ngeen ko ñàkk Karim ma nga ca Qatar toog di naan ataayam ak Zurich néewul Sénégal Abdoulaye Wade gi Versailles gi màgget yéen a nekk Ndakaaru lu di lëcc lëcc yéen ñi fay nekk di jëngu kenn xamu leen togi leen fen yéen bu leen yéen rek demu leen fenn ngeen xuloo ko dugg dañu dugg ko dañu génn yéen da ngeen amul choix yéen coalition bi yéen a ko woon taxawal PDS bu ngeen doon PDS ga ma xam bu ngeen matoon li ngeen doon yéen nekk ay politiciens mat li ngeen doon yéen li Khalifa Sall di dox ak Ousmane Sonko yéen PDS yéen a waroon nekk ci kanam di ko dox nit ñi topp seen ginnaaw yéen coalition contre Macky Sall yéen a ko waroon dox Khalifa Sall li mu daj ci Macky sàll mi ngi koy dox pour loolu dakk Karim Wade li mu daj ci Macky Sall anamu ngeen toog naan bokk nañu bokkuñu maafe laay lekk du ma lekk suppu kànja mel na yow Karim yow la jàpp la tëj jiñ la 150 xaw ma quelques milliards dugal ci kaso bi nga sàll ñu yóbbu Qatar guddi dugal ci avion mëy kenn gisu la ñematoo teg tànk Sénégal say doom mënatoo leen a gis mënoo gis kenn sa at bi ñu yàqu yow bu amee tey kuy xeex Macky Sall ku dajale mbooloo pour faagaadal Macky Sall yow kat yaa ci waroon a jiitu ñëpp topp sa ginnaaw nga toog ca Qatar ànd ak say cuuj yu fettul nekk Ndakaaru ñoo xam ne ñu fenn kenn xamuloon ñoo ñooy négocier ak ñooy communiquer jóge wàcc da ngeen a jóge ci taax mu kawee detteelu ba ci néegub dóodóor néegub dóodóor fa ngeen nekk yéen waa PDS taax mu kaw ngeen nekkoon detteelu dugg ci néegu dóodóor néegu ñax kenn xamul lu ngeen bëgg yéen ngeen a war a taamu seen ndong li fu muy dal yow Karim mënoo teg tànk Sénégal nga ne yor nga parti politique ci WhatsApp nga koy gérer ñuy dagale nu ñuy defee ba loolu lépp jóge fi ñu xañ la élection ne mënatoo bokk ci élection dem ci code électoral bi yow Karim wad ñoo la mënatoo fe nek candidat ci Sénégal yow Macky Sall ko def ya Khalifa Sall Khalifa diko xex mom moom dajale mbooloo moo xam ne boo liggéey bu ñu amé victoire ci assemblée ba code bobu ñu mën ko changer ba Khalifa Sall nga mëna nek candidat Karim wad nga mëna nek candidat ñuy xex lolu yow Karim ak ñi nga àndal ngay def communiquer nan yéen est ce que ay nit ngeen PDS est ce que ay nit ngeen yéen wala bok xayna man na am lolu mu leen neex Karim mom comme ma nga ca dubai di nos xay na moom yitteelu ko réew mi am na alalam ma nga Dubaay yu noos moom xay na ay élection yitteelu ko parce que gisuma mu xeex ko pour mën a bokk ci élection yi mën a nekk candidat Karim il faut xam ne Karim mënatul nekk candidat ci réew mi Karim mënatul nekk candidat képp ku koy xaal Sénégal da nga tardé sa bopp da nga dem ba màggat xubidaas Karim du nekk candidat ci réew mi tànk que sàll mu ngi ci biir bopp réew mi tant que Macky mi ngi ci bopp réew mi Karim du fi nekk candidat parce que Macky ci boppam moo dem ca code bi code électoral bi nga xamne moy organiser élection yi na képp ku ñu condamné 5 ans mënutoo nek candidat motax mu duggal ci Khalifa Sall duggal ci Karim Karim ak Khalifa Sall mënu mënuñoo nek candidat ci dara ci réew mi tànk maké ngi fi Khalifa lool la xam motax mu jóg di xex soldat lam kenn ku nek mu woo ànd ak kii pour xex lool pour mëna nek candidat parce que Karim dafa Khalifa amna ay ambition ta xamna mom liko maké ko Macky xañ mu muy xex ana Karim wad mom kenn déggu ko fenn xexul ci WhatsApp bi la nek di yaakaar day xex ci WhatsApp xex ci WhatsApp mako ko yewulen yewulen yewulen leen yeewu leen parce que mbir mi du ñom du Karim ak du Khalifa ak du usman Sonko du mak Sall mbir mi yéen Sénégalais yeen yeen wara a ba mëna ragné ki baax ci yeen ak ki leen di nax ngeen xamé ko na pat nak bu kenn xam sax na xam ngeen ki baax ak ki baaxul daas leen fana na pat japp seen jamm ñu jàpp ndof ngeen na pat rek bu bis ba ngeen labbali wat ba mu sap sap sap sap seen nak taxaw ne suñu ay victoire kenn du ko sàcc ku ko daan sàcc ñu génn ci mbedd mi lii képp la amul leneen lii képp la amul leneen lii la amul kon ñu ngi leen nuyu bu baax baax leen jox seen wàccuwaay leen ziyaara di leen wax ne nañu ne teg te déglu te bañ a yàkkamti te xam ne moom dans tous les cas dañuy am ndam incha allah dañuy am ndam awma sikk sàkk dañuy am ndam waaw te yàggatul yàggatul ñu ngi ciy liggéey ci côté bu ne dañuy am ndam ñu ngi ciy liggéey ci fànn bu ne ñu ngi ciy liggéey donc ci zahir ñu ngi ciy liggéey ci baatin waaw ah, amu ci sikki sàkk fam loolu kenn mënu ko wax wala mënaguñ koo wax waaye bu ñu demee ba ca lépp dina leer lu ma leen wax rek téye leen jalu muus la booy wàq di gis kon jàlleen jëf ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp kenn Maria Seck ñu ngi leen nuyu Yaya Cissé Papis Diatta waaw ah, ab sa dugure yéen ñëpp ñu ngi lay nuyu Abdoulaye Guèye Abdoulaye Sy Penda Fall waaw ah, yéen yéen ngi ree yéen xanaa yéen dund bu seer bi xanaa yëgu leen ko yéen yëgu leen lu xew de waaw ah, ñu ngi leen nuyu daal yéen ñëpp bañ a lim ndax boo limee ñaare di nga waa Fasek eh, Mahfouz Koli yéen ñëpp voilà ñoo ñoo gën a ñoo gën a ñoo gën a kontaan ci yéen donc Amadou Ly alias Limenge kon ñu def noonu guddi na incha allah ñu déglu fi ak suba leader yi bu la daaju génn wax bu ñu waxee ñu dellu si waat rek ñu ne suñu xalaat euh, fexe daal ba bañ ñu bañ a réeroo ñu bañ ñoo tasaare ñu bañ ñoo jaxase ñu bañ ñoo féewale ànd daal moo ñu war ñun askan wi ñun askan wi ndax ñun parti politique lañu. ñun askan yi parti politique lañu donc nañu organiser suñu parti politique ñuy ñun askan wi mooy ku jóg bëgg ñoo nax toog di ñoo tëju nekk sa parti ak say nit ah waaw sénégalais yi du ñu def ba ñu teg say pexe ñun tamit ñu taal suñu télévision mooy fii ñu nekk rek ñuy teg suñu pexe ñun rek boo tegee seen dëgg sa rex ñu teg suñu dëgg sa rex rek ñun askan wi ba kenn du ñu nax bu gis baa ñu xool suñu carte ku ñu koy jox ku leer koo xam ne teg teg gi dañ lay defal lii nga defal ñu li képp jaa leen jëf